maghribiya mooy almaqama sadisata asrata comme ni xamee maqama sadisa adabiya rek lay doon dañ ci jàngale mooy ma la yastaxilu bi leen ekaar mooy wax boo xam ne su la neexee bi nga dalee ci bopp bi maas ba ci cat li lii doo wax suuf boo dëkkoon ci gannaaw te marta ariya ba ci boppi loolu nga yam mu mel ni kullum fii fa lakin lakin boo ko jotee kullum la lay jox faa gi ak yaa ak fii gi boo ko jëmee càmmoñ fii la lay ak fii boo ko jëmee càmmoñ fa la lay jox ak rabbaka fa kabbir rabbaka fa kabbir kabbir boo ko jotee rabbaka la lay mu des faa faa boo ko boolee robba ka nga jot ko ba kër gis la lay jox waaw loolu moo tudd mala yesta ilu bi le nekkaat mooy sir fala kaba bi kal faras wala daama wala ximaar ak yi demee noonu hakkaa nettali na alxaarisu xaaris ibnu hammaamin kay doomi hammaam mu ne sayidtu fekke woon naa salaatal maghribi timis fi baadi masajidil maghribi ci lenn jàkkay maghribi dama mos a timis fekk ma fa ci benn falamma addaytuha ba ma joxee timis ja bi fadliha ànd ak ngëneelam wa safaxtuha bi nafliha ak su ma jullee timis jëf comme nañ ko farataale ba teg ci naafile yi a xam ne sunna soxla na ko mu ànd ak timis axasa jàpp na tarfi sama gis su setti soo xam ne xadim tabadoo sànne ku nañu naahiyatan ci wàll wamtazu te ñu jàqeeku fatwatan ci sell fafiyatan gudaa ji sell su ma bët dafa dal ci aw nit ñoo xam ne seen booru bopp lañ toog te itam daal seen melukaan daal de na ne bokkuñu ñu bëri ci ñu nekk ñu ñu sell lañ ah afaba jàpp na mooy dal na jàpp na parce que sama gis lu xatan fekk soo xam ne xaddin tabadoo sànne ku nañu mm. naa yatan cig wàll wamtaazo te ñu jàqee ko safwatan cig sell safiyatan gudaa ji sell wahum te ñoom yatahatawna ñu ngay joxante kaasal munafasati kaasa wàqante wa yaqtadihoona ñu ngay kocc mooy ñu ngay taal dinaa dal mu baax a fete dañu béyi gëstuwante ñoom mu ne ñu ngay waxtaan te itam xam-xam la ñuy waxtaan yi ñu ngay waxtaan xam moom la mel ni daal dafa am luñ bokk di wu gëstu faraxibtu ma xemem fi muhadasatihim ci waxtaan ak ñoom ma nim si woon waxtaan ak ñoom li kalimatin ngir baat tustafaadu def na ko jëriñoo ci ñoom ndax mën naa jaa xamee baat bu ma xamu doon aw adabin wala adab yustasaadu def na ko dolla ndeku wala ma jëlee ñoom nite gu ma amee hmm. ah, adab mooy luy rafetal sulukul insaan mooy luy nitel li hmm. aw adabin wala adab istazaadu def na ko dolla def hmm. fa saayitu ma dox ilayhim jëm ci ñoom ma dem ci ñoom saayal mutatafili dox aji xaar alayhim ci ñoom demin boo xam du dama xaar ñu xooma eh, dama jox li jëm ci ñoom wa qultu ma wax lahum ñaa leen ma ne leen ataqabaloona ndax da ngeen nangu nazilan gan ku xam dafa ñëw ndég bëgg dara ñaaram la ñuy wax nazil yéen a ngi bëgg gan boo xam ne yetlubu dana mu sàkku janal asmaari kottiteel ay ngoonaar la jëniya simaar waaye dut lu ñu kotti meñña ak gën a xarkat ngeen xam waaye ku ko waxal mu dégg la déggu waaye du ku ko jox lu muy xenu mu yóbbaale wa yabgi muy sàkku mu laxal xiwaa way xoro muy waxante laamal xa al xuwaar waaye waxuñ yàppi doomu gëlëm gëlëm bu ndaw muy xuwaar mu de koo xam ne ngeen waxtaanal nii rek la fi soxla waaye du sax ngeen jox ko la soxla de kii de gan la guy xaar gan guy xaar waxtaan nag lay xaar dut affaire reeree fi la soxla dut affaire lu mu yóbbaale la soxla lu mu fi déggee la bëgg leen ko yar mooy ko yóbbaale ñu ataqabaluuna ndax da ngeen nangu na zilan gan yatlu bu góog dana mu sàkku janal asmaari kottiteel ay ngonaar la jëniye simaar waaye dul lu ñu kotti meññe wa yabri muy sàkku mu la al hiwaar way xoro muy waxante la malha abuwaar waaye waxuñ jàpp doom gëlem faxalloo ñu daal de lii ñaar maal bu baax rek lay ñoom ñëpp ñu jagalaat toogaay yi pour mën naa am place ah waaw loolu ñu fekk lii ñaar maal bu baax rek lay muy jagalaat toogaay yi waqaaloo ñu ne marhaban marhaban mooy ñu tatagal bu baax ma toog falam ajlis jékki wuma illaa lam hata baare xin ndare kem gendeefu mela xaatifin guraaji fif aw nuxbata tahirin wala coobam janaaw xayfin gudaaji ragal hatta xasiyana ndare boo dikkal na hatta xasiyana ndare boo dikkal nañu jawaabun dagga kon gox ku xam ne ala atiqi nekk na ci joggareem dirafon kafaka nit bu gàtt daal la fa taw foofu xam ko ak xam ne mu ngi gàttoo benn benn mbuus benn saag mu wóor ne ki ab doxkat bu fi fa hayyaana mu nuyooñu bil kalimatayni ci ñaari baat mu ne ñu asalaamaaleykum wa hayyaa mu nuyoo almasjida jàkka ja bi taslimatayni ci ñaari baat mu julli ñaari ak ku tëyal masjid dora li muy wax summa qaala topp mu ne leen yaa ulil albaab yéen borom xel yi wal fadli tey borom gëneet allu baabu daa ji sell ama taalamuuna ndax xam ngeen ne xanaa xamu leen ne anna anfasal kurubaat na gën cay foori jàmm yàlla yi tanfisal kurubaat mooy yërël jàqare yi jàmm yàlla yi de bi gën a foor mooy fekk jàmm yàlla boo toll ci jàpp boo nekk ci jaaxle nga xet li ko ci jaaxle ga waaw xelam bu baax a baax ñu ne nit su fekkee dafa xettali bokkam ci njàqare àddina sama borom dina ko xettali ci njàqare yi bis pénc ñu ne mu wax loolu ama taalamuuna xanaa xamuleen ne ana am fasal qurubaat nag gën jaay koori jaamu yi tam fisal qurubaat mooy yërëm waam tana asbaabi najaati ak naka gën jaay foori saw mucc yi mu waasaatu sabil hajaati mooy dimbalante borom haajo yi bokk na di yi dàqa dimbali nit ci mucc yi dàqa fàggul nit mucc ko tollu ndigante mooy bu jéem a xettali way ni taman nag man gis naa ci buur bi nga xam ni wàcc na ma saaxatekum ci seen digre bi waa taaxate mu dogal li ñaan istimaaxatekum seen ak mayu la sori du mahallin ku ñu dàqi barab la xaafin bu daa ji sori bari bu sibetin te ndawal ay gune la ximasin doy ku xiif man nag may gin ci yàlla ne su sore sori la boo te ñàkk mu mën a toog mu ma tax a ay gune yu ndaw itam ñu xiif a xiif ñoom laa di jéggal la saridu mahallin ku ñu dàqi baral laa xoofin gu daa ji sori wa baridu sibetin te ndawal ay gune la te maa suñu daway xiif baal fil jamaati ndax nekk na ci man ku xam ne yëf sahu mu dalal an naaj ñun xumayal majaati tàngooru xiif ndax man ak sama njaboot soo ndaw soosule ku ñu mën a dimbale bañ xam luñ defee luñ dalalee suñuy xol mën naa xam fa qaalu gaañi wax la koy ñaar ko gaañi ne yaa sa yow mii day innaka nag yow hadarta teew nga baadal xisaab ci gannaaw gaye yow nag da nga guddee da nga doxul waxtu nag innaka nag yow xadasa teew nga baala isaak ci gannaaw bi walam yabqa desul illa fadalatul asaan dara ndesi di reer yi da nga fekk ni da nga guddee da xaar moom dox waxtu daja baax da nga doxul waxtu moo tax ndesi bi rek moo fi des fa in kunta boo nekkee xanuwaan te aji doyloo bi aji moom soo ko xeebul sama tëj den ngay fekk fii nag ñun mënuwaan ku koy tere soo ko xeebul ñoom xalaatu ñàkk la ko jox ndax wax dëgg yàlla jox ko bahiima mu lekk wala xappi ko jox ko ku ko soxla moo ko soo ko xeebul nag moo fi nit qaala mu ne inna afa sadaidi naka boromi tattat la yaqnao dana mu doyloo bil fadatil mawaidi ci sànni di ndab yi muy ñibit wala fadatil was masawidi ak forgitin buusi kon ñu jàng mu ne ku jeeg ku dey ñi si sax du ko el parce que ruusi sax du ko el man de elante mu ci dara waaw ku jeeg ku mën naa bara mën naa bañ yéen mën naa bañ a bëri bañ inna xam sadaidi naka borom bi kattan la yàq na dana mu doy loo gane ci ndar bi xam naa ne daal boo ko. waaw mu ne ku jekkul du bañ yenn yi. faamara digal kullum képp minhum ci mbooloo mi abdahu jaamam an yusawwidahu mu yóbbalat ko maa li nga xam ne indahu nekk na fa moom kenn ku nekk wax na nag waaw man nga dem ca barab ba kenn la fa desoon ci reer nga indil ko fa ajabahu yéemuloo ko xasunoo njëkk la wasakara bu sant alayhi ci moom ñu bu mu ko dee mu kontaan lool mu kontaan lool sant lool ndax itam nag nit ki nag bu la joxee limaam defeeratul la dara kenn du joxe lu maamu loolu moo tax borom nag wax dëgg yàlla boo ko tiraagalee ci kem na nga xam dana ji tiraanga ja muy lu rëy muy ca kontaan yàlla na ko baax a al hadaya ala miqdari mudiha hadiya kamay baxoo lay toll waaye du lay kam jëm salaam mooy bawal ay tolloo ay du tolloo kam jëm وهكذا تنزل أن الهدهد mu ne picc moomu ñëw hudhud daf waxoon yonent yàlla Suleymaan ne ko dama bëggoon nga gane si ma uriidu an takuuna fii diyaafati Souleymane ne ko xanaa man kenn lay ana wax bi mu ne ko déedéet yaa sa gay yi ci jasira sàngam jasira sàngam yaa sa gay yi laa war bal anta wa ahlu askarika fi jasirati kasa fi yawmi kasa sa gay yi nekk barab sàngam bi sàngam laa bëgg ngeen gane fa hadara Souleymane alayhi salaam bi junuudihi fa taaral hudhud fa saada jaradatan fa xanaqaa warama biha fil bahri wa qala kulu ya nabiyallah man fatahu lahmu nalahu almara leena bu Suleymaan ñëwee ca ngan nga picc mi daal dinaa jàpp soccat ba mu ko sax ba mu ko jàppee rey ko daal di ko dugal ci géej gi ne ko aywa bi song leen kuy man naa am jàpp yi ñeex ngi géej gi mooy ñaaw ngan <laughs> nga léegi daal ku rek léegi waaw waaw mu ne fa tey ka Souleymane wa junuuduhu min zaalika hawlan kaamilan mooy loo Souleymane ree na ko ren ba déwén boo xelam dajee rek mu ree mu ne ci lool la ñuy wax ne jaa Souleymanu yawmal ard hudhudatan adat lahu min jaradin kana fii fiiha yonent yàlla Souleymane ab bis bu mu ànd ak dooleem dafa ñëwal piccam hudhud piccam yi jox benn picc benn benn benn soccat bu nekkoon ci gémmiñam waa ansadat bi lisaanil haali qailatan mu ci wax mooy innal hadaya ala miqdari muhdiha dégg nga waaw loolu la wax law kaana yuhda ila al insani qimatahu la kaana yuhda laka dunya wa ma fiha su fekkoon hadiya na borom kon dañ naa hadi na gannaaw ñoom lii lañ xam ndétit lañ xam jox nañu ko ndétit buy waram xel dafa xam ne déedéet la duñu ko dara moo tax moo tax ne fan jeboo yéemuloo kaa sunoo njëkk li wasakara mu sant alayhi ci wajalasa mu jékki yarqubu de fuuglu maa li nga xam ne yuxmalu des na ko yaanu ilayhi jëm ci moom mu toog na dexaan ndesi ndesi dañ ko war a indi wasum naa ñu dellu nax nu ñun ila tisaarati mulaxil adabi jëm ci jéqi way xoromuy adab mooy génne ay xam-xam yu rafet woo yooni yi ak i kexeem wastimbaat mayeenihi ak ballulu ndoxam mu seet ndoxam mu neex min oyoonihi ci sew ndem mooy ciw ñooñam ñu desaat ci suñu waxtaanu xam-xam ah ni ñuy tuddee barami xam-xam ñii leen wax loo ilaan jul naa ba ñu wëndeelu fii maa ci lu xam ne la yastaxilu du mu jàllarbeku bili na kaasi ci jattu ba suñu waxaat gi ci li ñuy wax alqalbu ci bayaan mooy jumlatun la tastahilu bi nekaas soo dalee ci bopp bi nga maas ba ci cet la soo dalee woon ci arafu mujj wi nga maas ba ca bopp ba loolu ngay xam mu di comme ça ne ka xawlika ni ki waxta jënga ne saaki kaas saaki bu kaasin aji sotti kaas gis nga sina kaasin bi soo ko fataxee lii fa kaasin bi xëcci ko kaa fa kaasin bi nga kasara ko yaa ngi dem ci muy saakibu leen ci saakibu soo ko jotee kaasin la kon la yëpp yëpp ne kaasinum la muy kullun fii falaki wa rabbaka fa kabbir rabbaka fa kabbir ee la ñu alquran dégg nga fatataay naa ñu hoowante ilaa na santija jëm ci ba ñu ngerte loohat la wañaal loolu alafkaar ak xilaat yi ñu ne nañ ci liggéey loo xilaat yi ba xam wanaftari a ñu dajji min wu jëm alafkaar ak xéegi ñu génne ci lu bees xalaa yam ma ci bu nasab albaadi wu kii jëkkee salaasa jimaanaatin ñetti per fenq di ci jaxam ñu ne ku njëkk a génne ñetti baat ngay génne mu nekk jumla boo xam la tas te bi nekk léegi su xasee ba am ku génne nag affaire bi nag lay doon ka ca topp mooy topp ka ca topp mooy topp suba ka ñaareel ñeenti baat lay génne ka ñetteel juróomi baat lay génne ka ñeenteel juróom benni baat lay génne juróom la ñoom mu def kenn foo génne jëm ñaari baat la ñu wax manzumu tata daraja topp héeg mooy dox asiyaadaatu ndolal gannaaw tàmbali na indi ñetti baat léegi dañ koo def rang nag deux planté fa yu rabbi on dana soo may mën a tii ki ko faree ndeyjoor wayu sabbi on dana juróom-ñaareel <coughs> fi nas mi ci nooteem wayu sabbi on dana juróom-ñaareel saa yi bu may fere tii ki ko faree càmmoy ala rax mi ànd ak soroxaate mooy par force ñu rang la nii day doxee par ndeyjoor juróom la ki tàmbali ki ko faree càmmoñ mooy du ko mujj ki ki ko faree ndeyjoor di ki ñaareel day def ñeenti baat kooku ki ko faree ndeyjoor di ki ñetteel def juróomi baat kooku ki ko faree ndeyjoor di ki juróomi di ki ñeenteel dafa def juróom benni baat mu def na ku mujj ki faree càmmoñ ki dalee xool kooku mooy def juróom ñaari baat qaala wax na arraabi ne wa kunnaa nekkoon nañ xadin tadam naa di nasu ñettata asaabinal këfi kem lima barami ténk booy juróom-ñaar lañu wataalaw naa te ñu tàppoo mooy bennoo torop ulfata asaabil këfi kem tàppoo asaabil këfi ñaar quran di wax noonu ci seen mbir bennoo leen mu ne dara dal di jàkkalante leen asame mi xana tii ngir màgg sama coono sahib may mën a tii ki ma faree ndeyjoor mu ni sama ñàkk saan ki ma faree ndeyjoor moo njëkk su ko defee affaire bi gën a gudd maa ko jël waqaal mu ne lum axan mal la lum ya dal axan mal la mum yokkat mal la boo ko jëttee lum lay doon boo ko jëttee axan lay lum boo ko jëttee mal la lay jumla bi li muy do boo ko dalee ci ndeyjoor jàng ba ci calli soo ko dalee ci càmmooñ jàng ba ci bopp bi lay doon te ñetti baat la mu ne ki njëkkee lu loo wa qaala wax mu yaaminuhu ka ko faree ndeyjoor war a indi ñeenti baat ne kabbir raja ajri rabbi kabbir na ngay màggal raja ajri rabbika yaakaare fayal sa booy def loo baax dana nga am yaakaar ju nga rëbb bi que boo ko jotee këbir la lay jox de te loolu la lay jox de boo ko jate ak am sax raja rek mu jox la raja ci raja boo ko jotee rek mu jox la ajri te loolu bu baax la boo ko jotee muy rëbb bi mu ñeenti baat waqaala wax alladi ki nga xam ne yelii dana ko méng <coughs> te mooy borom juróomi baat yi ne man yaru ba ku defar ki sa barra bu dëkkalee yan mu la moo defar la ma yokk mu bokkasee ba def lu baax su ko yàqu du defar man yaru ba ki sa barra yan mu juróomi baat gis nga ma boo ko jotee dañ ci man mu def yaa seetlu ko waaw seetlu ko waaw yaa boo ko booleeg barra nga jottu ko yorul ba lay doole isa boo ko jotee isa lay doole yorul ba boo ko jotee dañ ci am barra mu def yaa yaa boo man nga jottu ko mooy yan ma loolu mooy yan mu def yaa loolu wa qaala wa alaaxaru keneen ka keneen ka ca topp war indi juróom benni moo wax sëkkit kulla man namma lakka sëkkit sëkkit noppi kulla man képp koo xam ne namma rambaaj na lakka ñi àlla képp ku indi waxi rambaaj du la ko indi da nga koy noppi soo ko defee sëkkit da muus mooy tax sa nit yi àgg de sa yu nga tëkkil boo ko jatee tëkkil lay doole lakka boo ko jatee kulla lay doole namma boo ko jatee man lay doole man boo ko jatee namma lay doole kulla boo ko jatee lakka lay doole tëkkil boo ko jatee tëkkil lay doole kon jumla bi li muy doon boo ko dalee ci bopp bi ba ci cat la boo ko dalee ci cat la jël ci bopp bi xaaris nee na waaw da di fël a naw ba aye gi lay jëm ci man léegi nag maa def léegi nag maa def waqataa yéen a tëbir moom ràññeeku na naf mu simti naf rang asubaan yi may ko juróom-ñaari baat an lay ci man ñi ne man may ne ñaari baat yi nga xam ne la tastahidu bi nekkaat mu ne falam yasal dañut fikri sama xelaat yusufu de tëkk de tëgg waaye ki tey toj ma nekk fa de boole ka tasaare wayu suru muy xooma léeg-léeg suma xel mi bari mu bëri mu daj koo doon wayu suru muy ñàkk léeg mel ni duma duma ba ma ne jarek na jarek mu taw ko fii di misaale ke ci biir loolu attane mu maa ngi lelu sax fala aji den may fekk man ko xam yu ne mu dana mu lele ci biir loolu sax ñi ma toogal ah affaire bi ku ci mën pexe na ko ci def waaye taxu dara kenn def ci dara ah soo demee mu danaa lelu balaa ji den may fekk mën ko xam mu dana mu dale ilaan rakada ba dal an na sii mu ngelaw li ngelaw lu neex li ñëw moom ba peex mi jeex waaxasa te leer a tas lii mu xamatu wóor ne tan ñun ñëpp ñu nangu ne kenn mënu ko fa qultu ma wax li asaabi ñaar samay àndandoo ma wax samay gay leen law hadara bu teewoon asarooji ko jug saroj hadal maqaama bi la taxawaay la safa kon musaafara addaa jàngoro alwaqaama jiraaj jëfeñ ci faj mu ah waa ji fi sori aka mujj doon hay ku fi newoon loolu laa leen law hadara bu teewoon asarooji ko jug saroj hadal maqaam bi la ee la sabaa kon mu saafara addaa jàngoro xanaa xam ju daa jëfeñ jëfeñ fa qaalu ee law nasarat bu wàccoon haasi yii bi iyaasin bi iyaasin la am sakk mu jàpp mu noppi ji ala yaasin ànd ak naagu mu ne ma lii ñu ne ma lii kenn kenn tane wuñu iyaas mii madrabul masali ci ñaw ku gaaraloon lii dana xam ne mu ngi ci daal law nazalat waajoon haadihi li biyatin diyaat la am sax kon mu jàpp ci bañ cee wax dara waaye yaa dina ànd ak naa ko wajaan naa ñu xar nu baabiha ak tëju buntam ñu sàmbali na waxtaan yëpp mooy lii daal nu mu wa dalika sawru te jooje la aji nemmeeku al muxtari juraaji gaar yal xaduna mu ñuy rog laxdal musdari rog ak aji xeeb suñ ngan gi fii ak si léegi dexeer na léeg-léeg bu rog bi ñu xamuñ dara la ñuy rogee rek bu rog la aji nemmeeku almoosari judaaji gaa yal hasuna mum ñuy roglaas ak musari roglaas ak xesara bu yu àllifu muy boole ak durara bari mel ni wurusu durru wa naxnu te ñun la nadri xamuñu ndegam affaire yu dana ci moom falamma hasara ba mu yëgee nag xalaf ti daahina ci suñu gàccewu wa nu doob dax daahina ak nga cag suñuy tepp tepp ndax daa mooy taataa boo xam ne xóotul bu yaatoo it xóotul bu ne ba nga xam ne moom xam na ne lii tërañu xam na ne ñun amuñu ay mustawayaat yu di ay ci yi ñuy wax xaal mu ne da wax ne yaa xaw ma yéen samay bokk hmm. inna minal ana bokk na ci coono alazim daraaji mag istilaad al aqim jurloo aji jirmel ku amul doom nga leen a jur ku yar dal loolu mënta nekk yéen ñi bëgg xaaris indi nasbu su simti subaax yi te du leen ko jox wala tisba ak safar la ko bi saqimi ci aji xob wala koo tawat man la faj bopp nga la faj xaaris ñi muy dimbandiku nii tane wuñ ko fu mu ko ci gaaroo su ko yitte rek li daa yéen wa fawqa kulli sin ilmin te nekk na ci kow bépp borom xam-xam alimu aji xam te nag baax na ñun ñëpp ñu fàttaliku li yàlla wax ne loo xam-xam rek am na ku la gën a xam su ma aqbala topp mu jublu alayya ci man mu jàkkaarloo mun waqaala mu ne ma saaloobu kalsi naa huutu man naa ko kalsi huutu waaye saayee gi maa ko jël waa fii ka danaa la fegal ma li nga xam ne naa ba ka jot na la juróom-ñaari baat yi nga bëgg mutta la danaa la ko andil affaire bi duma xem ak yow ci wisar waaye danaa la ko indil ci wëy fa in siita boo soobee an tansura ba nga wisarat loolu wala tax sura te doo ci fakk talu soo ko bëgg indi muy wisar faqul waxal waxal muxaatiban daa ji waqanteet li man ñaal koo xam ne damma ŋàññi na mu albux la nay waa sara te mu bëri alxaada lay yedde boo gisee kuy ñaxtu ci meloy nit ñi nan ñàkk njëriñ baaxul dëqul dëqul rek mm. dag naan ko nag waaw ku xamut koy lay yaa tooñ sa bopp rek ku xamul koy lay yaa tooñ sa bopp xamul koy def wéedu tooñ sa bopp rek danga ko naan lus bi kulli mu wam bi kulli mu wam malin ida wa malaka badal lus bi kulli mu wam malin ida wa malaka badal lus na ngay bi kulli muwammalin ci képp ku ñu yaakaar koo xam ne isaan la mu bu dajalee wa malaka te mu moom mooy mu am basala mu joxe ba na sosoo ba tey ñëpp mosuñoo bokk baax ñëpp mosuñoo bokk bon waaye yaa xam ki jar a mu gën ñax ci <laughs> loolu waaw waaw basala boo ko jotee la ci am lus mu def baax boo jëlee baax ak basala gi nga boole ko kaafa laabu malaka ak kaafa mooy bi kulli boo jëlee miim ak malaka ak waaw ak mali mooy mu wam mali selul waawa boo jëlee lamma bu jëlee mali mu jox la lamma boo jëlee mu wammalin ak bi kulli mu jox la wa malaka mu des ba ak lut muy basal soo ko jëttee lam doon lay dore te jëm ñaari baan la kon ñi jàng loolu mu ne soo ko bëggee muy wisal mu ngi noonu soo ko bëggee muy wéy incha allah suba jàmm lay soo ko bëggee muy wéy na wéy ahbabta boo soppee antante ma ba nga wéyat ko li ma wax nii soo ko bëgg muy wëy fa qul waxal lilladi ñaar ki nga xam ne tondim da nga ko màggal da us armalan ida hara waha idal maru asa asnit aha nabahatin abin iha an dal nasa uslu janaba xasimin musaaxibin in jalasa udru ida habamiran warmi bihi idarata uskun taqawwa faasa yuhibbu waqtun nakasa mu ne us na ngay dimbale armalan ku ñàkk isan arabu gaare ku ñàkk bu dikkee na nga ko jox waaw us na ngay na ngay garbal us na ngay jox armalan ku ñàkk isan arabu wara te na ngay sàmm kóolare isal maru bu ñaawale waay nga firéale asa soo amee kuy def lu ñaaw yow da ngay sàmm li nga war a asa ak boo ko us nga ji xam mu des hamsa telan ko muy muy muy us al maru boo ko jettee armalan lay isa isa wara boo ko jettee hara lay doon mu des waaw waaw ak naara boo ko jotee waraa la isaa boo ko jotee isaa la armalan boo ko jotee almaru la us boo ko jotee ata ak na ngay dimbalee axaana baaxatin borom yëkkateku daraja abin na ngay faccal ixaa an mbokkoo dan na fekku tiliman namu nit su fekkee ne yàlla da koo sédde danga koy nangul cëram nga di ko jegeñal bët bu mbokkoo xam ne xiir lay indi danga koy moy dan na sa boo ko jettee as nit la lay jox axaa ixaa an boo ko jettee axaa la lay jox abin na baa kalangu hatin boo ko jettee hatin la taw tanis bi haala na baa abin axaa ixaa an ak nit dan la uslu na ngay wéedu na ngay fàtte janaaba xaasimin aji tooñ musaaxibin kuraaji jéqi ji hay in jalasa bu jékkee ne gën a fare tooñ kat du nitu jàmm kooku da ngay mujj lam laa def te jagoon rek ba ba mu ko fay wanteeg moom bu baax a baax bu baax in janasa mooy uslu ak jana ba ak bind mooy janaaba te ci musaaxibin mooy rasimin boo jëlee rasimin ak ba ak janaaba mooy musaaxib janaba uslu boo ko jàttee mooy nekkal di sang isa habba bu hubbee miran weerante war ni nanga sànni bihi weerante isa rasa bu saxe rasa boo ko jàttee usru lay do bihi habba war mi miran mu des waaw waaw ak miran war mi la hababi mm. mm. isa isa us nu jox la rasa uskun na ngay dal mm. na nga nekk ko dal ko tey soo ko defee taxaw wa da nga dëgër teyari doo bëri lu mu yàq yu seen bu xëy na guddi nga leen waxtu waxtu nag kasaroo jette na nakasa uskun la lay jox waxtun taqawwa la lay jox yusinfu moo lay jox fanasa fanasa jox la yusinfu taqawwa jox la waxtun uskun jox la nakasa boobu jatee noonu lay demee qaala Haaris nee na falamma saharana ba mu ñu njeebeeree na bi ayaatihi ci kéemaanam waxasarana te mu notee ñu bi bon di xayatihi ci sori ay dayoom bi nga xamee ñun ñëpp xam nañ ne daal moo ñu man dogu nañ ci moom maanaam def na lu ñuy xéem ma dax dañ koo tagga tagg xata stafa ba balu tagg yi ba mu léegi doy na ba mu sàkku ñuy bàyyi tagg yi wa ma nax naahu ñi may ko ilaa li xaj faa ba mu doylu ñu may ko ma li ngeen ma jox doy na su ma sammara ay malaanam was dafara mu gàddoo jiraabawoo gafakaam ma daal di takk ay magaasam ay malaanam daal di gàddu bagaasam wana asamu buur yu sidu mu tàmbali te wéy ni hmm. lillahi darru ifabatin hmm. siddiqil maqaali maqaawila faqul anaamu fadailan masuratan wa fawadila حاورتهم فوجدت صحبان لديهم باخلا وحللت فيهم سائلا فلقيت جودا سائلا أقسمت لو كان الكرام حيا لكانوا وابلا mu ne lillahi kiman ñaal na yàlla darru xisaabatin bari soow ak am mbooloo sadiqil maqaale ñe de dëggu ci wax muqawilan ñe day sang ay sang lañ wax yu dëggu lañ la wax faaqo kawe nañ al anaama nit ñi fadailan cii ngëneel maa soora yede yu solo fadail jam wala mufrad bi fadila la wax faadilan ak may faadil jam wala mu xar bi faadila la dañ koy def kii sifatul saati la kii sifatul fi'li la baax a baax baax xawatum ladayhim fa ñoom baaqilan muy kem baaqil dama wax ak ñoom waaye fasaha ak balaaxa ji ma fekk ci ñoom taana sahbaan waaye bu dikkoon ci ñoom muy madrabul masali ci xitaaba day mel comme baaqil mi nga xam ne mooy madrabul masali ci ayu ak faha tëlee ku tëlee woon a dafa jënd benn koj biir ci fukki dërëm ak benn dajeeg ay nit di xoomat dajeeg ay nit ñi lekk affaire bi loo ko jëndee pour mu leeral fukki dërëm ak benn mu daal di def nii baaraam yi bucc ci lam bi affaire bi rek ci dem waxalal tuwàcc naa fii yëpp ñoom saa yi lan daaje laaj sual mooy lismu falaqiitu ma dajee jawdan taw sailan buraaji yol sailan mooy lislam nga bàyyi xel bari ak uqsi aqsamtu giñ law kaana bu nekkoon alkiraamu way tedd yi xayan di taw la kaano kon ñoom ñu nekk waa bilante waame ñi baax bëri nañ waaye ñii kenn leen loolu mu gaawoon kon ñi law kaana bu nekkoon alkiramu way tedd yi xayan di taw la kaana kon ñu nekk waa bilante waami suma xataa topp mu jeegowu xiida rum xëy kem ñaari gunto waxaada mu del sihaat mustahidan daaji muslu mel xëy ni ci dee mu dox tuuti dellu del waqaal mu ne yaa xissa man éyéen e tedd tedd ki nga xam ne àddima ñàkk na mu al aala ñoñ wa kan ki nga xam ne sule ba rekkees na ko al halal yéen sang yu baax yi innal xaasiqa marax gi qad waqaba tàbbin wa min sarri xaasiqin idaa waqab wa wajal mahajjati naka digg yoon wi mooy cëlmayal yoon mm-hmm. xabin sàkka ba muuru la sum mm-hmm. ne kuy deme du gis mm-hmm. wa bay ni nekk na sama wa bay na kinni ak diggante sama néeg lay nun guddi daami sun gudaa ji lëndëm wa tariqun ak yoon taami sun gudaa ji far ci mandarga faal min misbaahi na fi lamp yu melu ko gën a mu hóolu loo alxisaara fakk talu wayu bayin biral li ñaar rasaari jeexiri kon loolu ndax làmb bu a hmm. faal min mis bàyyi na fi làmb hmm. yu bayinu boobu biral li ñaar ma alasaara jeexiri wayu mu ne te dana mu hóolu loo alxisaara fakk talu léegi nag mu ne moom daal làmp la bëgg ndax daal foofa muy dem foofa muy dem dafa lëndëm falam maa ji a ba dikkeesee bil multamasi ca la ñoo sàkku wa jalla te feeñal al yi xar kanami dawul xabasi leeru làmp bi bañ indee làmp bi ba taal ko ñi gisante raaytu gis naa saahiba saydina borom suñu raw bi wa ma abu saydin ah mu si abu saydin dëkk abu saydin fa ma wax li ashaabi ñaar samay àndandoo ci laa waxee samay gaay ne leen hada kii mooy ki nga xam ne asartu junjoon naa ila annahu jëm ci nakam isa nataqa bu tuddee asabu mu jubal way ni sumtira bu tawloo see ko saabu mu sotti kii mooy Saroji bi ma doon law hadara Saroji hadal maqaama la safadda al oqam kii la leen doon wax fa at la moo ñu yëkkati naxwa hoo fa wàllam ala naa ka doq kenn ku ne yëkkati doqam bëggu koo xool bi wax da koo peeg mooy ñi wërale bii ci moom ala daa xam ba di ñëpp kay moom lañ jàkkaarloo de ko wasaaloohu ñi laaj ko ayu saamirahum mm-hmm. bu mu ngoonaaral leen lay la tawoo ci guddim mm-hmm. ala yet buroo ci bu ñu jàngat la tawoo ñàkkam mm-hmm. ñu ne ko dañoo bëggoon tey nga seetlu ñu guddi gi waxtaanal ñu ko ni tam ah dana am la manal loo xam ne am nga ci soxla dana am luñ ci jee loolu lañ ko wax fa qaala mu ne hubban dana ma sopp li ma li nga xam ne ahbabtum sopp ngeen ko man kay lu leen neex rek neex na wa ruhban dana ma yaatale yaata bikum jëy rahabtum bi ngeen ma yaatale ah te itam man maa la bëgg moom du ma ko li ngeen wax neex na ma lool wa ruhban dana ma yaatale yaatal bikum ci yéen id rahabtum bi ngeen yaatale xeera an nii ndare man nag xasattukum jublu naa leen waat faale te samay gone yatadawaroona ñu ngi xaw minal joxe ngir xiif waye doona te ñuy ñaan li ñaan baskuru jon ci gaaw ak del waaye nag maa bawoo sama kër nag dama fa bàyyi njaboot su ndaw ñoo xam ne ay gune la ñu ngi yooxu xiif dama leen naxee dañ ma na nga gaaw indi xeera an nii ndare man xasattukum jublu naa leen وأطفالي te samay gone يتضورون ñu ngi xaw min al-juu' ngir xiif ويدعون te dinañ ñaanal li ñaanal bés ku du jox ci gaaw ak dal وإن تراسوني te buñ ma yàkkamtee xaamarahum muur leen atay su tey walam yasku te du sell lahum ñaale xanaa su dund te su fekkee yàgg naa genn yàgg gi mën naa leen a fekk ci melokaan wu tax la maa yóbbu duma leen ci mën a teena xaamarahu muur leen ak tey su tey mooy ñu àgg fu ci naqadee na ci dégg nga du sell la wam ñaar ana su fa dawoo nii ma li asaba ngir naa sudda ma mëdd maxmasatahum ma wéele xuslatahum seen fot summa an xaliba topp ma ci gaaw mutaahiban te aji waaj li samari ci ngoonaar ila sahari ba kon dama bëggoon ngeen may ma ma dem su ma demee toppatoo leen bañ lekk may yee leen bañ nelaw ma mën a am xel mu dal ci sama gannaaw su ma ñëwee man fee toog ba ni ngeen bëgg li daal la bëgg fa dama nii bàyyi ma li asaaba naa dem faa sudda ma mëdd maxmasatahum seen xiif mooy jox leen ñu lekk oo siixa ma weele xusatahum seen pot xiif boobu saafaraw ma man leen a nax bañ nelaw su ma an xaliba topp ma jàllar bek ilaykum jëm ci xaalasari ci gaaw subaa loolu buy am rek ci saa lay ñëw ndax gune bu lekke ba suur buy jëfee nax bam nelaw mu taahiban di aji waay li samari ci ngonaar ci la ba jël xaalis ne ko kun naa ñi wax li ahadil xilmati ñaal kenn ci jaam ñi ci ñun ne ko ittabihu topp ko ila fi atihi jëm ci kuréelam li yëkkoona ngir na nekk ak asraxa di gën a gaaw li fay atihi ci delsim ñu wax kenn ci jaam ñi ànd na da ak moom soo demee bu àggee buñ gisee mu ànd ak yow ñëpp dañ xam ne kuy soxla ci gannaaw te itam bu la gis dana war a sagoxe boo xam ne bu ko def fantalaqa mu boyu moom xulaam bi maahu ànd ak abu zeydin muttabilan daaji ba daaji gàddoo mooy bokk jiraboo gafakaam wa mu hasir wa mu hasisan te daaji gaawee iyaaboo wàññeeku xale bi buur ànd ak moom mu ngi xabadu sàggi da dox gaaw antala xamu bayu maa o hande o muttabinan aji bokk jira bo gafa kam o muhasisan te daji xiir mooy gaawal iya bo wàññeeku faab taa mu yéex bud an yéex bu xam ne jaawasa jéggi na dayoo ñu toog lu yàgg yàgg mu ne yeneen rek su ma da ak xola mu gune gi wax dayoo mu daa ji wér xale ko boolee soo tënk moom kenn fa qul nañu ne ko waaw maa xam ne indaka moo ne fi yow min al hadis ci waxtaan ci ku bon ah, naxate nañu de xalum ah, loo waaw ah, maa xam ne fi yow min al hadis ci waxtaan anil xabiis mm-hmm. ci ku fa qaala mu ne ma axada jàpp na bii ci man bi turuqin ci yoon mu ne bët nii da way sonn le dafa ma doxloo ba ma tas jaarloo ma ci ay yoon yu bëri wa subulin ak yoon mu tasaaya bët nii yu bëri cël fu ne wiire na fa man ñoo nekk dafa ak man xataa aw day naa ba ñu fëli ilaa du way jëm ci ak kër xaribatin sudaa ji rab bañaa bi ci kër gu tuuti te rab fa qaala mu ne haawunaa ci fii la mun naa fii sama yesu waaye mu ne fii laa dëkk wokru afraax yi tey tàggam samay ci samay samay doom fi lañ nekk su mastaftataa toog mu hubbilu baaboo buntam mu fëgg bunt ñu hubbilu waxtalaje mu nangu min nii ci man jiraaboo gafaka mu ne ma jox ma sàgg ma jox waxtalaje mu nangu min nii ci man jiraaboo gafaka waqaala mu ma laam ri sama dund mooy sama ngi eh laqad xafafta xoyofal nga an nii ci man wastawjabta xeeyoo nga alhusna lu rafet min nii ci man ma eh yow de xeen bii nga ma wax ni konoon doon na gis de moo tax war naa laa defal dara waaw laam ri sama dund mooy sama ngi eh laqad xafafta xoyofal nga an nii ci man eh wastawjabta te nga xeeyoo alhusna rafet min nii ci man ka jàppal na si lay biir boo xam ne hiya moom mm-hmm. min nafaisi nasayi mm-hmm. mu ngi bokk ci way foori layebi dama la bëgg a jox layebi bu foor a foor mm-hmm. wa maxaarisil masalihi tey jëmbatuwaay masla yi te itam mën na la jëriñ ci baral yu bari waan sadda mu daal di sadda mu woy woy ne isa hawayta boo làqee jana naxlatin kotitel tàndarma meññatam tàndarma fala taqrabanha bal ko jegeeti ila qabilin ba déwén tàndarma xam ne benn yoon la cee meñ boo ko sakkee kay jàpp si dégg yéen gannaaw ñëw naa ci yéen li ngeen am ci waxtu bi jox ngeen ma ko su ne kay bëggaa dara du tax ma fi def ci jox la ko ala yej buraay la to leen fan kenn dem ko jox na la xam te dafa koy muñal ba mu xamati ba moo gën a jaadu dina nga bu baax a baax xam nga li ñuy xonk oto yi ba nga traité ñu ñëw ñu toog ba si benn nga te béykat wax dëgg traité rek traité lay xam dara xam nga lu leen wul maana dara lu leen wul maana dara lu leen wul maana dara isa ma xawayta boo fala taqrabanha bul ko jege illa qabilin ba déwén wa in ma saqatta boorotee ala baydarin ci weer faawsil na nga feesal sa jox ko mi ne sumbuli ci gub alxaasili gudaaji xam waaw gannaaw pittal nga da ngay cob ba demee ci weer jabal de lan ko fekk ay boo dogee de xaar mais mën na la jaa fekk dana bu baax a baax waaw gannaaw nga ba dee ci mm. la nga fekk mu am mm. doy loola rek mu teew moo gën di góore moo mm. <laughs> gën di góore waaw ah, benn dërëm boo teew moo gën a wóor di góore de ah, waaw dëgg de yu ma sa xatta boorotee xala bay dërin cig weer fa xaw sil feesala sa jox rek mu ne ci gub alaasili gudaay bi xam waaye toog ba de xaar lu ñu yaragu ëpp naa ne yow daal gannaaw ba nga demee fekk mu teew am soo yeboo doyloo ko moo gën nekk bi di xaar ay dig de waaw wala talbasan te bul sax isaama la xatta boo foree watan saba taw su nga sampu fii ki fatil haabili ci biir ak ñi fii boo cebee ba sa feer fa ngay dem boo ko toogee fii du la faa jàppee rek yow gannaaw yow dem ko mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. loolaa doon nga faa dem wala tuuri lan na te bëdde sori isa ma sabaxata booy dem ba ci diggu ndox ma ëpp naa def fa inna salaamata naka mucc su saa yi na maanaam nit boo koy laaj danga doyloo ci moom lam mën a joxe ci xol bu tàlli moo gën a wóor waaw moo gën a wóor topp ni topp ni topp ni mm-hmm. ba mu joxe loo xam ne buy sago rek du ko joxe mm-hmm. ba mu joxe loo xam ne bu ci tey ak bakkan rek du ko joxe mm-hmm. la ca juddoo duy wóor waaw moo tax ci tefes bi rek moo a wóor waaye dem ba ci diggu ndox ma wóorul waaw nit ki boo koy laaj ba mm. nga doy loolu lu mm. loo xam ne mën na koo joxe ci xol boo tànni mm. mooy wóor ci ëllëg seen diggante waaw dëgg la li ñu wax ni baaxoon nañ xam wala suuxi lan na bande sori isa ma sabata boy feeyi fa inna salamata mucc fi saahili nekk na ci jaga te it na nga ko booleeg neex la muy waaye furu bu naqari dafa bëri yu mu yàq moo tax bi ngeen waxee waaw rek laa wax de waxaati del waxee rek bi haati ci andi wa jaawib na tontoo bi saw fa waaw léegi daal loolu di wax ne faa ko bëgg wan ko ne ko mën naa ko rek loolu wax ne dig la ko wan ko ne ko daw jës rek waaw waxaati tontoo bi haati mooy andi rek jaawib na ngay tontoo bi saw fa seetlu bu baax a baax waaye waaye waaye progu naqari dafa bëri lu muy yàq alkalimatu tayiba sadaqa seetlu bu baax a baax dañu Musa ànd man ak fas bi ba daa man ci rahmatullahi alayhi ñu alayhi ma ñu ñu ñu ñu ko wax ñoo dem Casamance maa dañoo xeex sëriñ bi ñu ne Bambey waxtaan ci ne bu baax fa ñaari at benn bi lañ ko leen di boole ba ñoo dem seeti ko. waaw de bañ demee ba faral fay ñu fekk fa soxna soo xamante ne soxna soo xamante ne ñoom moom. te ñoo de bokk yoon itam ba fi ñuy wàccee tali. boo ñu ñaar kenn dama boobu ay boobu nekkoon na mu na yoon. mel ne boppam war a jàll hmm. mu gis benn oto mu wax ak moom pour pour nañu yóbbu ko karab hmm. ba ñu teg suñu bagage soxna si teg mu ne ko xool man mun ma yóbbu soxna soxna si nag mën na xale ñu te waxoon naa la man waxuma ko dem ba ñaan nga def yi ci sa tool ma ne eh mu ne yow nag fa nga seetlu rek waaye da ngaa liggéey ñun rek ñun dem lañ bëgg yow koo bëgg nga ko yóbbu nga bëgg yow boo ñu yóbbu da nga yóbbu keneen waaye bu ñu demul ci yow day dem keneen day dem ci keneen da ngaa dem dànk rek li nga def kuy liggéey ak nit ñi du ko def yow da ngaa liggéey rek defal ndànk rek mu man kii lay waxaat ma ne ko ñoo ànd defal ndànk rek da dem ndànk xam na loo xam ne ku ànd ak nit ñi di ko def yow da ngaa liggéey rek defal ndànk waaw ñun dem lañ bëgg yow koo yóbbu nga bëgg te loolu bu baax a baax nit ñu soxlaa noonu lañ la soxla da ngeen waxtaan rek mu door a wax nañ waxtaan mujj mujj na jël ñun ñëpp ñu dem seetloo ko bu baax a baax seetloo ko bu baax a baax dana am loo xam ne kuy liggéey ak nit ñi warul di ko def kuy liggéey ak nit ñi warul di ko def gis nga ko bu baax a baax hmm. léegi waxaatin na ngay tontoo bi haati hmm. naa bawoo fii nii hen bi dem Kaolack dem Birkilaan duggee fa booba diggante bi militaire yi quatre cent quatre cent franc lañu ko daan fay diggante Kaffrine ak Kaolack téeméer mu duggee mu fekk ci oto bi soxna soo xam ne Kaffrine du duggee joxe ñaar téeméer ak rende bi delloo ko téeméer muy këyit bu xara xara xara xara wax dëgg yàlla ñàkk yërmande rek waaye moom bu ko jëlee xam na ci pexe ndax xam na barab yoo xam ne moom dana fay dem te bu ko yóbboo xaalis léegi mu jox ko bu ko jaayee mu jax waaye ñàkk yërmande rek moom moo sama bañ a dugg dem ma duggee boo man passé bu ma ñu dem dem soxna si jox jox xaalis ma bañ a dugg jël ma comme ko soo ko dem ma génn mu bi may firi ko wan ko soxna si ne ko bëgg nga mu ne waaw ma jël xayit bi dencaat ko waa France yow yow bëgg nga xayit bi nga jox soxna si bu noonu déedéet ma ne ko liñ ko jox ma ne yow bëgg nga xayit bi nga jox soxna mu jékki bi de kanam mu ne waaw ma ne ko jël ko bi mu ko jëlee ma ne ko delloo ma sama ñaar dugg mu delloo ma sama ñaar dugg ma dindi teen bi jox ko Omar ñu doon dem ba léegi am mooy dañu waroon a bàyyi ma ne ko pour la dañuy sanqal rek moo sanqal ne lay def dafa am loo xam ne kuy liggéey nit ñi du ko def delloo ko baax a baax waaw boo xasee baax nag nit ñi yow na la jàmm gën a lu ne waaw na la déggoog ñoom gën a lu ne loolu moo tax mu ne affaire bi naqari pour bokk ci waxaatim na waxante rek e, bihaati ci ay rek lu la wax ne daal saa dig naa la ko wan ko na ko soxla naa la ko rek wa jaawim na bi saw fa lu la nit wax ne faa ku bëgg ëllëg ne ko rek bu soobee yàlla wa bi te na jaay ajilan aji yas aji yéex min koy teew bin ajili te aji gaaw te naan lu teew moom boo ko yemalee lu teew wala tuksiran na te bul bëril ala sahibin ci àndandoor heure bu ne nga ne jamaax ci nit rek loolu bu ko nit ki daal boo demee ci moom bala ngaa demaatee ci moom war nga xaar bu war na lay na moom waaw fama mun la yokkateesul xëttu ci li wéy si wal waasili daraa ji jokk koo gis mu sàppi fa mooy dem rek dafaa dem ko fa rek waaw waa dëgg koo gis mu dafa dem te nam muñ ko fa rek waaw wala tu feral na bul bi bëri na ala sahibin ci àndandoor fama mun la yokkateesul xëttu ci li wéy si wal waasili daraa ji jokk mu ne waa ji de mu wax li dama ne ma daal dama laa digal su ma toog mu ne ma uxsun ha denc ko nag fi tàmmori ko ci sa xel mi nga lii bu la rëcc de waxtu li te na te na ngay roy bi haa ci moom fi umari ko ci say mbir te it na ko jëfee wa ba de te nga gaaw na ilaa sax bi nga jëm ci say àndandoo fi kilaas rek bi ci wattu sa kon yal na yàlla jële ci yoonu jàmm man ngaa dellu <laughs> wa ba de te nga gaaw ilaa sax bi nga jëm ci fi kilaati rabbika ci wattu sa borom fa isa ballaxtuhum boo leen jotee boo àggee jàmm nag ah ba am lefum jotalal leen tey yétee sama nawee nayul ma leen warlu te nga jàng xale ci ñoom wasiyati sama dénkaane te lii mu wax nga jàng ko ñu dégg waqul te nga wax lawum ñaa leen xan nii jëlee ci man te nga waxal ma leen ne waqul te nga wax lawum ñaa leen xan nii jëlee ci man te nga waxal ma leen ne mm. inna sahara naka fokk mu mm. yàq nelaw mm. fil xuraafaati ci ay waxi neen rek la min aadamil afaati mu ngi bokk ci gën tey màggi gàkk yi may leen benn sikk tollu wut ni yàq nelawi guddi ci ay nelawi caaxaan yàq ci ay waxi caaxaan seetlu ku baax a baax yow wula guddi gi te man la ñàkkaane la mu faatalal la bëccëg ba seetlu ku baax a baax dafay métti lool inna sahaara ko fil xurafaati ci ay waxi neen rek la min azamil afaati mu ngi bokk ci gën ci ay màggi gàkk yi benn gàkk tolluwut ni yàq nelaw yu guddi ci ay waxi caaxaan rek ndax il faut nga nelaw beneen jamono te guddi gi jëriñoo wala su den man nag ulxi may sànni itiraasi sama wattandeku ku foo ne nag man nit ku bañul dara laa yéen nag man li ma bañ dama li ma war a bañ dama koy bañ wala su den man ulxi may sànni itiraasi sama wattandeku wala ajlubu du ma bijji alhawasa wàññeeku xel ila rati jëm ci sama bopp da dem yëf yi ñoraari te maa ko tey loolu dugguma ci ba loolu yàq na la guddi ci waxi caaxaan gàkk dëgg la te buñ foog ne man dama bañul dara qaala wax na arraawi aji solo ji xaalis falamma waqaf naa ba ñu taxawee ala fawasiri ci dëgg-dëgg wéyam watalana te ñu yëg xalaat nugri yi ci ci fexe moom ak yi ak tappareem bi xamee ni ñu naxee ba dem te lawa bi nag yeddante nañu ala tarki yi ci bàyyam te yëpp ñun ñoo ko def ba mu waxee ne damaa dem su ñun ko doo dem dana fi ne wala ixtiraar ak naxu biir kii ci fenam ak nim ñu naxee mais su ma tabarak naa topp ñu tàggaloo bi bu jóoyeen ci xar kanam basira bi la way siin wa safqatin ak tàccu xaasiratin bu daa ji perte mu ne moo tax dañ faa bàyyee ko ku ne ci bu siiñ te reewul ne na bu siiñee te reewul rek ne xasu te bu ñu tàggaloo bu jóyee ci xar kanam baasiratin yi daway siiñ wa safqatin ak